alhamdulilahi rabilalamin wasali allahuma wasallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa asxaabihi wala mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa ñu xam ne bokk na ci pied yi gën a mage muy kenu yi gën a mage ci tabax aw askan ak tabax ak société lu jëm ci jàngale ak yar jàngale ak yar mooy tabax aw xeet jàngale ak yar mooy tabax siwilisation mooy tabaxit société jàngale ak yar mooy jubbanti jikko mooy sellalit bakkan jàngale ak yar mooy tax mébét yu sell yi nga xam ne askan yi moom lañuy ñuy mébét jubluwaay yi ak bëgg-bëgg yeeg objectif yi nga xam ne ca lañ bëgg a àgg jàng ak yar mooy yoon wa ci jëm xeet wi nag muy xeetu jullit wala bépp xeet wu mën a doon lu jiitu ak leerug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i <laughs> njàngaleem di agsi ci ñoom ñu xam ne xeetu lislaam rawatina xeetu araab yi ci ak lëndëm këriis ci lañ nekkoon lëndëm goo xam ne ay caaxaan ak ay po ay lorante ak gëm yu taxawut loola rek moo fa nekkoon mu nekk xeet woo xam ne amul woon benn objectif boo xam ne moom la doon visé di dox jëm ca nekk xeet wu sànku xeet wu réer ci ak ceddo xeet wu mën a boddi konte ci biiru xeet kenn ku nekk di manquil sa moroom ci wàllu askan gëm ay caaxaan gëm ay mbir yu taxawut ci ay xarga fuufaak yu ko nuru kenn ku nekk di doyadal sa moroom nekkit xeet wu ñàkk effet ak jeexital ci xeet yi nga xam ne ñoom lañ dendaloon ba àggoon ci sunu borom tabaraka wa taala mere doom <coughs> doomu aadama yi nekk ci kaw suuf ba mu des lu néew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nañu ko ci saxiixu muslim nee sunu borom dafa xool waa suuf kon loolu jiitu na muy doon ab yonent dafa xool waa suuf mere leen ñoom ñépp muy arab ya wala muy ñeneen ña arab nee na ba mu des ay benn benn yu néew yoo xam ne ci ahlul kitaab lañ bokkoon doon ay labbe yu beru fële di jaamu seen borom ñooñe ñu néew ñooñe képp ñoo muccoon ci merom seen borom ci jamono yooyu yonent bi ñëwagut sallallahu alayhi wa sallam ci biir melokaan wu mel noonu la yàlla yabale ab yonentam ci yërmandeem ngir mu génne nit ñi ci lëndam googee yóbbu leen ci ak leer moo tax suñ borom tabaraka wa taala nettali ko <coughs> ne yàlla defal na jullit yi xéewal xéewal googu mooy lan nee mooy yónni gi mu yónni ci ñoom ab yonent boo xam ne ci ñoom la bokk nekk doomu aadama mu di leen jàngal alxuraan di leen jàngal sunna di leen sellal di leen yar donte ci ak réer lañ nekkoon mu génne leen ca réer gu biir googee yóbbu leen ci ak jubbantiku <coughs> kon loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee mu nekk ab jàngalekat nekk itam ab yarkat yar saxaaba ya radiallahu taala anhum ab yar bu mat jàngal leen am jàngale mu rafet diir bu gàtt mu génne genn menn mbooloo muy benn génération genn maas goo xam ne amul moroom ci àdduna amul moroom ci àdduna ba sunu borom tabaraka wa wax wax leen ko ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen xeet wi gën ci xeet yu mas a génn ci kaw yar ak jàngal goo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa def na leen ko mu dee leen tax da ngeen di digle lu baax di tere lu bon gannaaw boo xamee ne da ngeen a gëm yàlla <coughs> mbokki jullit yi soppiku bu gaaw googu am ci xeet bi nga xam ne moo doon xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy saxaaba yi ba ñu yëkkatikoo ci fu suufe fi ñu nekkoon yëkkatiku ba mel ne ay montagne àdduna ak li ci biiram ku leen gisutit nga di leen dégg loolu lépp li ko indi moo di benn méthode boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la tegoon ci lu jëm ci jàngale ak yar méthode bu jëm ci jàngale ak yar ak woote jëme ci lislaam méthode bu leer bu mucc bu baax méthode boobu nag dafa am ay melokaan am ay màndarga yoo xam ne jot na ci ñi nga xam ne ñoo yittewoo jàngale ak yar ñu jàngataat ko jéem ko gëstuwaat ba xam am njàngale mu mën a génne nit ku tekki dara akub yar bu mën a génne nit ku tekki dara ci gan anam lay amee ndax nee nañ noo ngi toll ci jamono joo xam ne xam ngeen li tàmbalee le 27 ba ci lëkkaat bi ab semaine la boo xam ne nee nañ àdduna ci la ñuy fàttaliku lu jëm ci wàllu njàng boo dégloo chiffres yi ñuy tudd ci wàllu échec boo xam ne jàngale ak yar am na ko ci àdduna yow dangay tiit te daanaka kenn ku nekk fa nga nekk sax la ngay teg sa bët rek doy na sëkk aajowoo ay chiffres yoo xam ne keneen na la koy wax kon jaadu na góor ñi nga xam ne ñoo jóg ittewoo wàllu jàngale ak yar ñi xoolaat li ñuy jàngale lu mu doon ak ni ñu koy jàngale nan la ak ban xeetu doom aadama lañ bëgg a tabax ëllëg mu doon koo xam ne kuy amal njariñ seen société lay doon kon tànn nañ ay tomb yu néew ci méthode bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la tegoon ba diir bu gàtt ci ñaar fukki at mu génne maas goo xam ne nangu nañ ne ci àdduna ñeneen ñu melaat noonu amaatagul ba léegi te du amaat ba ca jëkk moo di taabidu nnaas li rabbil alamin méthode boobu li ko tax a jëkk jóg dëgg dëgg dëgg mooy doom aadam fu mu nekk fu mu mën a doon ñi teel ko yar jàngal ko mu sax ci xolam ne moom mii jaamu yàlla la boo xam ne li muy wut ci kaw suuf mooy jaamu yàlla te li ko fi jariñ dara mooy mu am ngërëmul yàlla kooku mooy tomb bi nga xam ne moo war a jiitu ci yar bu ñuy teg bu nekk ak njàngale mu ñuy teg mu nekk loolu nag yonent bu yàlla masa a yónni bu mu mën a doon wàllu pas-pas woowu ci la tàmbaleek yow kon ñoom ñëpp ñoo ko bokk le di nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fañ ko yóndi woon la fa nekkoon ci ak lëndam ak i xiram ak i caaxaan la mu am ci woote ci pas-pas door a jëm ci leneen boo ko xoolee da ngay gis ne lu yàgg lool la tawxid muy wéetal sunu borom tabaraka wa taala mooy li nga xam ne moo tax yàlla bind doomu aadama yi waaye da ko bind itam ci ñoom nga xam ne ba ñuy juddu te yàqooguñ tawxid lañ indaale woon ba kër ñu leen di yàq comme ni mu saxee ci ay xadis kon saa boo xamee ne teg nañ ay méthode ak i programme yi njàng yoo xam ne tawxid moomee ak jox sunu borom tabaraka wa xaqam nekkatu ca xamal ne su boobaa balance bay peese doomu aadama ji ngir mu mën a génn doon ku mat booba balance ci boppam yàqu na jikko ya dana yàqu valeur yi nga xam ne moom lañ doon wax yépp dafay yàqu su fekkee ne tawxid jóg na fa rek lu am njariñ duutu fa des ndax tawxid bu dikkee mooy defar xol ba te xol bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal na nanu ne su baaxee lépp lu ñëwati ci waajoo ji di borom xol bi day baax waaye su ca dara sikkee wala mu yàqu lu ñëwati dara du baax kon kookoy tomb bu njëkk bi ci méthode boobu mu teg ñaareel ba moo di fexe ba nit ki ci boppam objectif bi ko tax a jóg yéeneem bëgg-bëggam ci programme bi mu teg ci jàngale ak yar moo di am sellug yéene am sellug pas-pas ca lam bëgg lépp boo ko seetloo ba mu jeex mu doon lu baax waaye it muy dox ci yoon woowa ndax sàkku xam-xam te caaxaani kese rek tax rawatina xam-xam bu jëm ci diine kooku danger la boo xam ne kuy jàng diine ku ne sax war nga ko wattandiku ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na ku sàkku xam-xam boo xam ne xam bii lu war a sàkkoo ngërëmul suñu borom la mu dem di ko sàkku te fekk àddina kese rek la ci jublu nee na kooku ëllëg xetuk àjjana du ko xeeñ yal na nu yàlla musal ci loolu bu dee xam-xami àdduna yi yéene ji bu sellee nga xam ne ka koy sàkku la ko tax a jóg mooy jariñ aw askanam jariñ société am yëkkati aw xeetam ba dootu féete woo di tàllal loxo waaye day mën a tàllal di joxe su fekkee yéene joojoo ko tax a jóg la chaque ne kooka daf cay am ab yool ab yool ndax yéene ju baax a baax la kon njàng moo xam njàngum diine la wala njàngum lu jëm ci àdduna la wut métier rek taxu ko jóg waaye yéene ju sell ja moo ne ca gannaaw su métier ba ñëwee rek day ñëw doon loo xam ne lu baax la ndol leen lay doon lu baax waaye du yéene ja su fekkee loola mooy yéene ja kese kese kese wala loo xam ne da ngaa bëgg yow ci sa jëmmi bopp sa jëm rek jariñu waaye yéene waale woo ci sam xeet saw xeet yéene waale woo ci sam réew kon sa sa yéene suufe na te itam sa tuyaaba néew na ndeg danga am dara ci tuyaaba gannaaw yéene jooju bokk na ci màndargay méthode bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngalee di ko yare moo di ne xam-xam day ànd ak jëf bu mën a doon xam-xamu diine day ànd ak jëf xam-xamu àdduna ngir mu jëriñ day ànd jëf ndax dañuy wax ne xam-xam ci boppam garab la meññet ma mooy jëf ja garab gi soo amul meññet amul njariñ wala njëriñam du bari bokk garab gi nga xam ne da nga ko jëmbatoon ngir meññet nga xam leneen taxul su demee ba war a ñor te ñorut bu boobaa googa garab amul njëriñ xam-xam nag noonu la mel moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jàngal saxaaba yi lu mu leen jàngal ci xam-xam da leen di jàngal nu ñu koy jëfe ñu doon ñaar ñu ànd ñoo xam ne mënuñoo taqali ko muy xam ak jëf bokk na ci màndarga yooyu moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiwoon na ci ñoom ñu yëg ne xam-xam boobu dafay continuer sàkku xam-xam istimrariyatul amaliyati taalimiya moo di ne ki xas dugg ci sàkku xam-xam di ca góor góorgóorlu amul fu muy yem koo xam ne day dem ba wax ne pare naa ci lii loolu amut loola nag lu am solo la ci jàng jàng xam-xamu diine ndax amut fooy àgg du polom du lenn loo xam ne danañ ne àgg nga fa ba nga war ne man léegi li ma doon sàkku ci xam-xamu diine xam naa lépp li ma dese mooy damay dem toog déedéet loolu amul ci diine foo toll da ngay dolli ko xam-xam yonent bi nga xam ne moo doon yonent bi sax yàlla di wax yu ci moom di wàccee ci moom alquran daf ne ko wa qul rabbi zidni ilma foo toll del ñaan di wax ne yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam kon xam-xam amul fu mu yem te mooy yonent bi bu dee xam-xamu adduna itam kenn ku nekk xam na ne ci jamono lan nekk joo xam ne lu waaye mën a jàng filière bu mën a doon ci àdduna mu nekk ci spécialiste xam na ne amul fu muy àgg ba yem fa kon fu mu toll fu nekk laaj na di jàngaat di dem ci ñi ko raw di def ay séminaire di dajawaat ñi ko ëpp xam-xam di dolliku lu bees loo xam ne xamu ko woon kon yonent bi sallallahu alayhi wa rawoon na bu yàgg a yàgg méthode yi ñuy teg pour di ko jànge parce que xamaloon na nit ñi ne xam-xam bi ci boppam moo xam bu àdduna la moo xam bu diine la amut fu muy yem foo xam ne da ngay jàng ba mu yàgg nga ne taxaw naa ndax saa boo taxawloo rek dangay ngay daal di tardé boo taxawee rek tardé ndax xam-xam doonut lu baaxoo taxaw benn day dox jëm kanam wala mu dox jëm gannaaw xam-xam yépp nag waaye taxaw moom mënta nekk bokk na ci yi nga xam ne moo di méthode bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg wala méthodologie bi nga xam ne moom la tegoon alayhi salaatu wasalaam ci wàllu jàngale ak jàng moo di ne du caagi ne école ba rek moo di jàngukaay du caagi ne jàkka ja rek moo di jàngukaay waaye mboolem force yi nekk ci biir societé bi dañoo war a jóg taxaw di defar maanaam di jàngale xale bi wala mag mi ni muy jàngee ci jàkka ji noonu la war a jàngee ca daara ja noonu la war a jàngee ca kër ga xale bet nekk noonu mbedd mi sax dafa war a jàngale média yi nga xam ne moom la ñuy jëfale jëfandikoo sax jàngalekaay la war a nekk moo tax réew yi nga xam ne dañoo xellu seen programme yi nga xam ne dañ ko bëgg a jàllale ci askan wi doon bu am njëriñ ci wàllu développement ak wàllu xalaat yu baax ci seen média lañ koy jaarale mu doon ay jàngukaay lu gën a bari nag tey média yi nga xam ne dañuy taxaw amuñu ab jubluwaay boo xam ne ci tabax xeet moom moo ko tax a taxaw lu ci bare bari li ko tax a jóg mooy benn yàq xeet wala mu def ci boppam loo xam ne bu yàquwut it daanaka duutu xam fu jëm bokk na ci méthodes yi te bokk ci yi ci ëpp solo moo di ne jàngale ak yar dafa war a am programme bu mu tegu boo xam ne dafay dëppoo ak bëgg-bëggi société ba ñuy jàngal di ko yar société boo dem bu ne am nañ seeni pas-pas am seeni culture am seen xeetu xalaatiin woo xam ne soo bëggee am ndam ci li nga xam ne moom nga leen di tegal ci programme da ci sàmmoo ak sàmmonte ak yooya danga nga gisit ne société boo dem bu ne am na yuñ aajo woo nga xam ne moom moo gën a ñor même bu dee ci wàllu àdduna bi moom lañ gën a soxla yow mi leen bëgg a jariñ yooyu ñu gën a soxla faaw nga teg programme yi jàng yoo xam ne yii ñu aajowoo au ñu koy jéggi feneen nañ ko jàng ba mën koo jariñoo foofu nag la ñuy ay njuumte yu bare bari yoo xam ne dafay faral di am ci suñ programme yi njàng yi nga xam ne ñu ngi koy teg te bàyyiwuñ ci xel yi nga xam ne mooy aajoy réew mi mooy aajoy askan wi programme dëkk bu mel ni dëkk bii nga xam ne dëkku mbay la dëkku càmm la dëkku géej la dëkk la bu yàlla jox ab jant dëkk boo xam ne bu dee ci wàllu mbay joor yi gën a tàlli ci la ko yàlla jox nga xam ne boo ko dee bay doo ñëw di dajji ay montagne wala nga di ca sonn nga ñëw ci wàllu sàmmukaay gis ne ay dénd déndi suuf yoo xam ne ay gott la yoo xam ne bu tawee ñax na sax boo arrosé ñax ma sax yu mel noonu lañ am ci wàllu càmm nga xool gis ne dëkk booba géej a ko wër géej ya gën a mage ak dex ya gën a mage ñoo ko wër ci wet gu nekk nga xool gis ne bu dee ab jant at mi yépp jant bi day xëy di fenk ca dëkk booba la chaque ne dëkk bu mel noonu am na koom mu bari moo xam ne yàlla daf ko ko yoor nga xam ne li des rek mooy mu wat waaye nag ànd ak ne lu metti la malheureusement niñ koy waxee nit ñi gorosé seeni loxo ne fa suñu yéene wat dañuy toog rek keneen defar fële bu wattee moom ba àggal bu lekkee ba am aw des itam mu ñëw jox nu mbokk jullit yi liñ doon séentu ci environnement bu mel ni bii moo di nëga waxuma ay ay faculté ak ay institut ak yu mel noonu waaye ay université taxaw yoo xam ne li ko tax a jóg képp mooy gëstu ci mbay kese yoo xam ne li ko tax a jóg kese mooy gëstu ci géej gi yoo xam ne li ko tax a jóg kese mooy gëstu ci naaj wi ak nan lañuy def ba génne ci énergie ba mën koo jariñoo ay centre de recherche yu mag yoo xam ne lañuy liggéey ci loolu lay jëm mbokki jullit yi buñ yaakaar mukk ne <coughs> nit ñi dañuy toog faste seeni loxo Occident jóge fële tegal leen ay programme yoo xam ne dañ koy paqueté rek ñëw tegal leen ko noonu ñu mën koo jël di ko jàng ci seen université yi mu mën leen a génne ci ak ñàkk mën leen a génne ci ak aajo ba duutuñu ko tàllal loxo moom déedéet loolu buñ ko seetooy duñ ko gis suñu dee indi programme yuñ paqueté programme yuy làkkloo seenu làkk lay doon nga xam ne da nga mën a fexe ba xarañee ko lool bu foo taxaw di ko làkk dañ naan ah kii de dafa mel ni moom daa bokk ca ñoom waaye nag boo xoolee loola lu muy jëriñ ci réew mu mel nii ak lañ soxla ci énergie ak ci wàllu développement mu wóor ne làkk dong ak làkk wa ngay làkk wu mën a doon loola doyut suñ nu dee yut dañ nu yut loo xam ne daf ñuy jàngal seen civilisation seen aada seen cosaan seeni gëm-gëm ak seen jikko yu yàqu sax faf kon suñ toogee di séentu lu mel noonu duñ ko gis ndax kat ñoom it dofuñu xam nañ ni yi nga am yow mu doon ay source yu mag yoo xam ne boo ko exploité duutoo ko soxla moom yooyu duñ la ci jàppale doo toog fii mukk di xool Occident gi nga xam ne ñoom dañ doon gént mënoon a am jant boo xam ne six mois képp dañ ko koy am ba ñoom liñ soxla lépp ci énergie ci àdduna ñu liggéey ko mu di mu yor seeni réew ba duutuñu ajoo pétrole duutuñu ajoo leneen su fekkee ne ñoom lu mel noonu nga am ci yow am at mu mat sëkk bul defee ne mukk dañuy ñëw taxawal la fii ay usines yoo xam ne ca ngay defaree yow sa énergie ak yu mel noonu yow rek yaa ko mën a jàng yaa mën a def sa recherche ba mën a taxawal loo xam ne ay liggéeyukaay la li fi ñëw akus néew ci ay ay ay machines yoo xam ne ci wàllu solaire lay liggéey nga xam ne batterie yaag onduleur yaag fiil yaag yépp da ngaa fas te say loxo ñi la koy liggéeyal ko yut noona boo yeexee sax ñu di la ko monteel keru muy sotti loola sa njëriñ lu néew a néew la cay doon te duñ la ko defal qualité bi nga soxla parce que kon mu mën a sax lu yàgg yàgg yàgg duutoo leen aajowoo waaye day war di yàqu ñuy defaraat di la jaayaat kon réew yu ndaw yi pour ñu mën a taxaw yiw wi leen yàlla jox sottil leen ko faw ñu jàngi xam-xam boo xam ne ci lañ koy mën a exploiter musiba ma gën a rëy nag mooy dem ba yaakaar ne métode mën naa taxaw wala programme boo xam ne dañuy jàng te yarub diine dañ ko ci génne saa buñ ko ci génnee résultat ba mooy jullit ba boo ko gisee duutoo xam ban façon nit la te nit ki citoyen bu aw yoon mooy ab jullit bu baax xet amut leneen jullit bu baax mooy citoyen boo xam ne mi ngi liggéeyal diineem di liggéeyal askanam di liggéeyal réewam waaye buñ sàgganee yarub diine ba la muy jur mooy dem ba suñ ndongo yi nga xam ne ñoo toll ci jàng xamatuñ fuñ jëm xamuñu njàng mi dëgg-dëgg lan lañ ciy jëriñu dañuy dem ba réer lu tax moo di dañ doon xalaat ne jàng li tax nit ki di ko def mooy mën a génn ñu jox la benn fonction nga yore ko di liggéey ñëw déposé say kayit ñu jël la ne la ay ca demal liggéey bu weer dee ñu fay la noonu rek la ko doon xalaate mu doon xalaat nag bu gàtt gàtt kon bi mu demee ba gisal boppam ne ay nit a ngi yoo xam ne jàng nañ fenn fu nekk jaar nañ fi jàng ba wan na aw araf ba noppi génn amuñu luñ liggéeye kon moom yaakaaram ndax bu fekkee ne fa bëggoon a jaar gis nañu fa jaar ba génn ba noppi amuñu liggéey kon yaakaar ju tas la koy jural lu fa sës mooy nga mën a gis ay ndaw yoo xam ne dañuy dagg seenum njàng dem dugg ci géej ga nañ koy waxee ca mbëkk ma ndax xaalis la doon xalaat ne moo ko taxoon a jóg te yaakaaratu ko fii te am na feneen foo xam ne donte dafa jëm fu mu xamut dafa jëm foo xam ne dee xaj na ca sax waaye foofa la ëppee yaakaar mu dal di jublu foofu bañ yaakaaree ne <clears throat> objectif bi nga xam ne moom la ñépp jëmoon mooy ni ñuy def ba am alal mu dem ba tasaaroo ci xeeti nit xeli nit ñi ñu ne alal kat di su ko liggéey waaye dañ koy lijjanti nit ñëpp daal di wëlbatiku xalaatatuñ ne dañoo war a liggéey dañoo war a jëmale am réew kanam waaye ñu jàpp ne ñëpp dañoo war a xëy rekk di lijjanti lijjanti goo xam ne lépp ay pexe lay doon ay njaxas lay doon ay wor lay doon ay lekk alali jàmbur lay doon foofa pos-pos bu baree bari daal di yàqu foofa kon programme yi njàng yee ba mu soree pas-pas ca lan mën a gise ay nit ñu jàng bañ nay intellectuel lañ ñu wëlbatiku fekk koo xam ne boroom xam-xam bu gàtt gàtt la waaye sor la séri yoo xam ne séri diine lay nuru mu ñëw torox la ci kanamam mu di ko nax te xamul ni kooku kuy naxe la te fekk jàngaloon nañ ko ba defee ni kii moom jàngal nañ ko ba mu mat kon pas-pas moo sori xamatul moom ban martaba la am ka muy gisit xamul ban martaba la am <coughs> mu jox ko loo xam ne la mu yooyoowut la ci ngay gisee ku jàng bañ ne intellectuel la ku jàng bañ ne wan naw arf mu ñëw bóof ci kanam koo xam ne ay xar nga fuufaak ay béjjën nag ay xaawak ak ay yëf yëfaan yu mel noonu la koy jox naan ko lii boo demee def ko nii boo demee def ko nii lam yoroon mu jox ko ko bu génnee lam ko doon wax du ci gis dara yooyu programme doonut yoo xam ne mooy defar nit koo xam ne mooy mën a taxaw diineem wala mu doon koo xam ne mooy mën a taxaw àddunaam mbokki jullit yi jafe-jafe yii jafe-jafe yu taxaw la yu réel la yoo xam ne su ci askan bi bëggee génn faaw ñu delloo siwaat njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabax nit ñi ci pas-pas tabax leen ci yéene waaye tabax leen ci jom tabax leen itam ci nangoo liggéey tabax leen ci yitte ju yëkkatiku ba weesu yow nooy amee nooy amee kër nooy amee oto nooy amee nangam waaye nooy liggéeyale sa askan ñoom bañ mën a am bay dimbali ñeneen itte jooju dafa war a nekk ci xeli ndaw ñi nekk ci xeli mag ñi nekk ci xeli ñuy teg programme yi ba loole ca la réew ma di mën a jóge kon suñ dikkee bay fàttaliku waxtu woo xam ne waxtu njàng la ñu ne wuyee dañuy xoolaat programme yi ñu doon teg ci àdduna di ko jànge fan lañu war a mën a jaar ba xettaliku ba xettali ndaw ñi kon jaadu na nu yëg ne responsabilité bu yaatu la nag bu yaatu la ngir nu mën a faj jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund kenn ku ci nekk am nga ci sa waar woo xam ne war nga cee def lépp loo xam ne loo man ki nekk waajur yor ay doomam yoo xam ne dañuy xëy di yi kooku lépp loo xam ne gis na ne na ca école ba moom war na ko jéem a mottali ci kër gi moo xam ci jàng mi la njàng mi la moo xam ci yar bi la béréb yi nga xam ne mooy bérébu jàngukaay yi itam jaadu nañu xoolaat programme yi nga xam ne moom la ñuy teg di ko jàngal nit ñi xool li nga xam ne mooy la ca am njariñ ñu di ko jàng li nga xam ne amul njariñ te dañ koy jàng loolu ñu seppi ko ca ba mu set ca wecc su fekkee daal noo ngi séentu ne dañoo bëgg a tabax ak maas ca kanam goo xam ne bu dikkee dox bu gaaw bi àdduna di dox dana mën a ànd ak moom laajaat nañu tabaxaat keneenu nit ku bokkut ak kii ni gis tey ndax kat jamono yi nga xamee ne diine génn nañ ko ci yëf yi ci lañ gisee ne lépp yàqu na ku jàng ba am lim war a am lépp ci xam-xam am ci ay compétence li mu war a am lépp ñi xëy jox ko responsabilité yi alali réew mi teg ko ci sa loxo nga xëy xëy këpp ko pour sa intérêt personnel loolu jàpp naa ne e, njàngale muy génne ku mel noonu aaja nag xoolaat bu baax a baax a baax yar bi munu cee ñàkk yarub diine bi munu cee ñàkk taqwa muy ragal yàlla faw ñu def ko ci xol yi su loolu amut nit ki nuy am nit ku nasax lay doon koo xam ne ci suufi tànkam rek lay xool lu jëm ci biiram dong lay xool lu jët ñi ci këram dong lay xool amul soxla ci keneen yàlla na yàlla musal ci lu mel noonu responsabilité bi ñëpp la nag comme ni ma ko waxee muy baay ba muy école ba muy mbedd bi muy média bi nga xam ne moom la ñuy xool kenn ku ne am nga responsabilité boo xam ne boo ca taxawee lépp dana saafaru moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullukum raain yéen ñëpp kenn ku ci nekk ab sàmm nga wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku ci ne la nga doon sàmm bis dana ñëw suñu borom tabaraka wa taala laaj la ko kooku bàyyiwul kenn la ko tàmbalee ci ñi ca kaw yite réew ma ak ña ànd ak ñoom ak ña ca digg baag ba ci suuf ba ca nit ka ci këram ba ca surgaam ci këram doomam soxnaam kenn ku nekk am nga responsabilité boo xam ne boo wéeteeg sa borom dana la laaj li ma la dénkoon yow loo fa defoon kon su boobaa yàlla nañ fekk ndénkaan la ñu taxawoon ca def ca lañ ca war اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة الملحدين واحم حوصة الدين اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم من كل معتد ظلوم يا رب العالمين اللهم يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم وكيد فجارهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه